رضي الله الخالق عن شيخنا وقدوتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التيجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا بآمن ورضا الله الخالق عن عن المجاهد الأكبر شيخنا وقدوتنا شيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي رضي الله عنه wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa defe naa ni kaddu bi ñu war a jël kenn rek doy na ci représenté kër Cheikh El Hadj Omarul ci mbooloo gannaaw ba ñu nuyoo suñu waajur yi fi jógee léegi Hadj Baba Mountaga Tall ci Mountaga Cheikh Cheikh Omarul Thierno Mountaga Cheikh Omar Mountaga Taha mu fi jóge léegi pour ngeen xam ko kooku mooy taawu sëtu kër Cheikh El Hadj Omar Fouti moom moo fi jóge léegi yaram bi naqadi na ñun biñ ko gisee sax dama xaw jaxle waaye ma xam ni nag ki ko yëkkati mooy ki nga xam ni lii mu defal maamam di Thierno Hamid am bu mu am cër ci Cheikh Al Hadj moo tax mu mën def lii ndax Cheikh Al Hadj du ku nekkee jug rek defal ko dara mun nga nekk njabootam te du la nangu Cheikh Al Hadj Omar mun nga nekk njabootam te du la nangul waaye nag su la nangulee rek àdduna xam ni nangul la te nangul na Thierno Hamid ñun suñu ndax damay faral di wax ni duñu waxtaan ci Cheikh Alhaji Omar en tant que suñu maam la ndax ku fi toog ak Cheikh Omar si sëriñ soo nekkee su la naqadee ñun ñëpp dañuy dugg si biir ndax Cheikh Alhaji Omar damay faral di wax ni benn taalibe la am mu mat ku sëkk taalibe mooy Seydi El Hadji Malick kooku nag wóolu waarisu sir bi parce que nit dina am loo doon te du fekkee ku mbir ma la waaye nag Maodo dafa doon mbir ma waaye ki ko doonale nag mooy borom mbir ma mooy Cheikh Xalifa ndax ki def nit ni ko yaay xalifa cheikh te nit kooku juddoogul est-ce que duñu seet cheikh xaaju moom mooy kan ki def Maodo xalifa te Maodo juddoogul damay faral di wax Maodo fa sore na waaye xoolal sëñ Babacar Si radiyallahu anhu nee na ba ñu lay proposé ca kaw ca xadara ba kenn moo proposé mooy njóor Fuuta di cheikh xaaju moom sëñ Balla Gaye wax léegi nag muy benn càll la boo xam ne kuy ku nekk taalibe Cheikh Ahmed Tidiane dugg nga ci biir njabootu Cheikh Xaaj Omar soo ko xamee soo ko xamul mooy la am soo ko gëmee soo ko gëmul mooy la am fii ci réew mi amul ko génn Cheikh Xaaj Omar moo tax suñu daaw ko waxoon léegi ak diine wa taqwa أخ الصدق والهدى ولم يرضى ما ليس العلي عنه راضيا ñu ne ko diine yaay bàyyi diine mu ni ko ragal am bàyyi yaay yaay ragal yàlla te nee na Cheikh Hadj Omar nag doo ko lu yàlla àndul moo tax nag nit mënu ko wooteel lu yàlla àndul te ca Mouhamed nag dafa toog ci ñaan bu nangu nit soo toogee si ñaan bu nangu soo buggee sa mbir baax soo buggul sa mbir dina baax te ñaan bu nangu nag dana jiitu si nga bëgg ku mel ne Thierno Bachir Mountakha Bara ki nga xam ne mag ñee ko jox lépp boobu mi ngi dund moom Thierno Bachir mag ñi booba ñu ngi fi di dund ci dañu jël lépp jox ko li ko mbir yi seen loxo di Thierno Hamid nag dañ na ah ca Mouhamed nag yàlla dogal mu gëm loolu mu gis loolu ci Thierno Bachir balaa muy jot balaa muy jot mbir mi nangul ko jox ko léppam kon nag suñu ñëwee fii ci bis bu tëdd bii di nuyu nag suñu doomu baay bi fi nekk Seyd Ahmada Si moom rek mun na waxal Cheikh El Hadj Omar koy nuyu ziar bi nuyu ci teew xam ni nag mbaax rek moo tax bi jox ñu kàddu waaye ki ñuy xaar kàddu ki ko yor daal mooy ci am na xam ne doy na ci su defee ne ñu ngi nuyu mbooloo di leen sant ci ñëw bi ñu ñëw wuy gi woote Cheikh Xaali Omar Fouti di nuyu suñu mag Mouhamadou Nazir Tall mi ngi fi tabaaraka Allah ñoom dañu baax waaye ñoom ñoo ñu jàpp su ko ci loo xam ne mu leen ndokkee di leen ñaanal yàlla yàlla muy nga bëgg fan ak wér li nga bëgg liggéey ci diine bi itam yàlla ko yàlla jàppandal te itam ñu dund ba am ngërëm ak Cheikh Hadj Omar ak Barkeem wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.